ndigal te yaru yow kon danga làq wépp yiw te et ëllëg maa la ko lu dee fi jóg yara ko gën gën koo rafet moo jare dox junni bi at wut sëriñ bu ko jox ku yaru rek a mata am ku yaru rek a mata xam ku yaruwul matu la am matu xam turam wa sax ab yar li tax amul moroom day tax nga gën fa say moroom day tax nga gën fa boroom kala yarul rep la nax yar li tax amul moroom day tax nga gën fa say moroom day tax gën fa boroom ku la yorul rek la nax ku la ma junni it te jëppulul yar may la léegi nga gis junni yarot waroomi yar far ko te sax responsabilité euh, moom bu ko tubaab di waxee ñi ngi ko jële euh, ci baat boo nga xam ni euh, nasaraan respondere la koy wax ma respondere moom mooy li nga xam ni sës jox nañ la ko mu nekk cër nga doxal ko bobu mat seuk way sant nañ leen di beurek top ay football di football yi kenn xamul lu mu doon doomi juru day def wari fam ndax de ngeen ma ne mot ci dara ay toy ba nga xamni buñ la wowe ni la tontu ci li nga defone ak li nga waxone ak ci sa taxaway nga andi ci tontu yi nga xamni moy tontu yi war kenn ku ne ñaka jabot di nga leen andi ci njabot ci yantou sallallahu alayhi wasallam sédé leen wa yonent bi àndaat seede ñëpp moo tax kenn ku ne euh, dëllal càmmaa càmmee fam xereñal ko pour boo liggéey njaboot gi nga jaboote boo leen dee présenté yont bi ñu mat ko sëkk. wàllu responsabilité dafa gàllu ci doomu aadama bu ci nekk ku ci nekk ak sa niveau nag nit ki lu mu gàtt gàtt gàtt rek au moins am na responsabilité ci jëmmi boppam bu amee ak njaboot day dem ci loolu. borom kër bu këram yëngutoo day wax waa këram. kon dafa mel ni responsabilité mooy nit ki am cër buñ ko jox walla cër bu nga xam ni moom moo ko moom mais mu doxal ko na mu waree alors doxal ko na mu waree nag mooy dafay am ay charte dafay am ay yoon dafa am ay euh, jagale yu nga xam ni teg nañ ko fi nga doxalee ko ci yoon woowu. ba dara ban ci manké bu amé responsabilité chef de quartier bi wala responsabilité maire bi wala responsabilité kilifa diiné gi wala responsabilité kilifa réew responsabilité administrateur bi kenn ku ci nekk ak ce niveau de responsabilité fi nga taxaw ak la nga xamni mom mo ci war kon mu mel ni bu ñuy wax responsabilité rek moom mooy ki nga xam ne mi ngi jaar ci yoon mi ngi doxal na mu war a doxale charte yee nañ ko tëralee ma ngi koy jaar ca charte yooyu te amul lenn lu mu ciy sikki sàkka amul lenn lu mu ciy jéem a jubbante lu koo xam ne ci coobareem la tegu lu dul li yoon bi wax daal fa lay jaar am bu soxor nag yi daanu bare jamar waaye daanu joofi waaye sàmm bu soxorul nagi duñu am jamar way duñu jofi joofi léeg-léeg bukki fàdd gaynde fad rek. responsabilité mom xeyna na mën nañ la ko jox wala mu yell ci yow waye nga nga jël ko it lenen la. mom xamna def dafa yag baye xel comme niko defana amna hadith ne bi sallallahu alayhi wasallam ko waxe ne kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi nu ci barke Seex Bamba mi sab jubaale ki jël Mustapha def mu ganti mbindeefo dofal Bamba xaadim mu fal Seyxuna su duniyaa defoon kër gu ñàkkul solo dalay feete woo la kombaati at Mbàkke te am nopp déggul ku yor aw meloom ci penkook ci sowu te li yàgg na sëñ Tuubaa ñun ñëpp ay taalibeem lañu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu yéen bokki taalibe bi yëpp di leen sant di leen gërëm bëgg a waxtaan ak yéen rek tuuti ci li nga xam ne ci jamonoy magal gi gitu. waxon nañu ko fi bëgg ñu yok juma ji te mo waxon képp ku yaakaar sëñ Touba lépp lo man nañ ko ci def ma bëgg xamal leen nak liggéey bi ni ñu wax ne ne lay tollu moom nag mbiram nu ñu ko tënk ci lu gàtt tam ëmb lu bari ndax géej la du jeex man nañ cee yandu suba man man fi ne man naa bis bu set ngeen ñëw fi ma wax leen ci lu bokkut lu ma leen waxoon te la ma leen di waxit yàlla defal na ma sutura mooy man ëmma euh, lu ma ragal dëgg la bu wér ne géej la woon waaye man ma taamu ci aw lef mu di kilifteef waaye tubaab bi dippee ko responsabilité muy lu mu gànnaayoo waaye mu koddaaye ko dëgg dib sàmm yor yotu aqiiqa ànd ak charian bàyyiwul bépp mbindeef ba ci murid ak sax marit yi yor melokaan wu kenn mënta soppi ba mel ni mu mel tey nii mu mel rekk noonu la ma sa mel gëm yàlla bu wóor jox léppam sëñ Tuubaa loolu tax na gannaaw sëriñ bi ak xew-xew baak yëngatu ya ba ñu defee lu mel ne miraas ma ndono la mom la nga xamne mom la amone lépp daf ko dajale djebal ko Serigne Touba djebal ko Serigne Touba naam Serigne Touba Cheikh Mahamadul Moustapha jox ko ko hadiya ne nak na bàyyi bopam ak Serigne Touba loolu di lo xamne djef ju rëy rëy ju jenn djef musta te kaw la. serigne blane musta musta jóg ci loolu jamono bu nek xamna ni mbollem ko aju ci Cheikhul Khadim mo xam ci deret mo xam ci pass pass sak bo mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci loxom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 ku ko ciy gërëm. wax itam loolu doy na sa kay tegtal. loolu mu ko xam ne ko maanaam bañ a jël faxal te dëgg am nga bi ba faxaroo di ngi ba ko yoon faxal te dëgg bul yem ci nijaay ki bàyyi ki ndey desante ka day doo seen i cër ko jar foo seere kuy fonk day loo ab cëram na loo dal yow bi nag nga am cëri cër loolu doxee na ko ak loolu maanaam fexee la jol fexee jëm kaw bul fexee jëm suufa kay waxadal ci jolli ngay woowaale ab xiiboon ca ngay noti mbir xër gi feeñ loolu jox na loolu mu ne ko ñaan ne ko yàlla ngay kawe kawe ba jiituwaa kaw te nangoo suufu kuy suufe kuy loolu dem na ba ci finde ji dara ko yàlla defal adduna ak alaaxira nga xam ne am yi moo leen dàq seere lii ñu def muy góor ne Sénégal gi moo ko dàq ñëpp wàll gee ca mm, jamono it kenn da ku ci ne moom ma sees ko gis loolee na ko ba noppee bu autorité yi ñëwee mu toog ci suuf lalu deram teg leen ci kaw mooy loole ma ko fexeel ba jiituwaa kaw te nangoo suuf suufe kuy amutur <laughs> sëñ bi moom ko moom ndax moom moom daan wax ni ah, dëgg moom ki ma ci jur ak ki ma ci jur laa ci yemale man de li ma mën a ànd ak doomu aadama bu ne li ma ànd ak moom li ma mën a ànd ak moom mooy siraatal mustaqim rek la mën a ànd ak la mën a ànd ak doomu aadama doomu aadama bu mën a doon nag mas naa am bis mu wax ni man de sant yàlla li ma li ma sant yàlla ma leeral man de ba may ndaw ñaanal ñaanal borom ni ko yow yalla ma ngi lay ñaan kep ko waxe ne su yow deug du nga la mën wax deug yow yalla ma ngi lay ñaan ko ko yalla mo seqee mom dara ci àdduna moom loolu ci mujj sax la ko wax ci mujj rek la wax lool bëgg deug gogou moko ndax man nga ñame deug gogou moko may lim am lepp ndax bu bu deug rag raglu deug gogou man nga bëgg deug lool mo wax ni ku bëgg deug la ba nopi te do ñëmé dëgg ndax da nga gis lo bëgg way do ko ñeme da mom da ko da ko da ko ñëmé da ko ñëmé ba nopi bëgg ko da ko bëgg gogu nga waaw da ko bëgg ba nopi ñëmé ko ko ko ku jéxal gor tak la du la wax mukk leuf nar leuf ne la wax def ko ne bëgg la waye la wax nar ko ko sañ na ko sëñ Abdoulaat dafa xamone li gallu ci kawam responsabilité bi mu daf ko yëg daf ko xam. xam na ne soppiku dëkk bi ak ak la mu bëgg ci dëkk bi ci loo xam la ko Sëñ Tuubaa jaarale. mais daf ko yëg aussi. moo xëy jël rajo bi wax ne bëggatuma fa lii bëggatuma fa laa nii laa bëgg jëmm yi mel nii laa bëgg jikko yi mel lii laay bañ ci dëkk bi. Cheikh Abdoulaye bi mu dikkee dafa daal di jël responsabilité am fàttali ko soññee ko soññeewaat ko daal di poser ay actes woo ñi mu bokkal Serigne Touba yëpp waxtaan ceeg ñoom woo seex si. wax ak état bi wax ak mboolem taalibe yi soog a nag daal di jël rajo bi. waxoon naa leen fi ne bu fi kenn naan bu fi kenn dorog bu fi kenn tëgg tama bu fi kenn sabar bu fi kenn fecc bu fi kenn kar ma di leen xamal ne waxoon naa leen ko waxaat naa leen ko teel si naa di leen ko waxati léegi nag am naa pas-pasu weesu wax ji ngir dëkk bi nun sàmm rek mooy ci suñu war a gor li fi borom di bañ feeg muy nooyi dañ ko koy bañ le li mu fi bëgg feeg muy nooyi dañ ko koy bëggalee képp koo xam nag ne yii ma la wax muy xeeti mooy yàlla ak xeeti po yaa ngi ko fiy defati ba waraani séenu fa saasa la ñuy defanteeg yow teg nañu ci suñu bakkan posé acte dem ci procureur bind fa plainte boo xam ne wax na ni lépp lu aji ci Touba ak circonférence circonscription boobu tere nañ fa sàcc ak denc ko tere nañ fa sàngara ak mandi ak tux tere nañ fa tëgg tere nañ fa lépp loo xam ne dëppoowul ak lislaam te taxoon sëriñ Touba jóg doon sonn muy ab toolam neen loo lépp tere nañ ko ci Touba. du woon daa bëgg tere rek di tere waaye kay doon ñu sàmmal sunu noof ëllëg ba ci sunuy wér-gi-yaram gu njaboot loolu taxoon na mu jëloon baatub kilifteef maanaa bind ab bataaxal ngir responsabilité responsabilité ay lettre le 18 euh, septembre 1980 Seigne Saliou signé Abdou Khadir signé sëñ soxe bu signé na ko sëñ Murtada signé ko sëñ Ablaat signé ko muy juróomi signature doomi sëñ Touba ñu dem déposé ko ci euh, tribunal bu régional bu bu bu bu Diourbel daa benn bataaxal boo xam ne si suñuy gëstu bu ñu gis bataaxal bi ñu ngi ko euh, jagleel monsieur le procureur de la république près du tribunal de première instance de Diourbel daal euh, kilifa gi nga xam ne moom mooy toogal nguur gi foofu ci wàllu yoon

ñaxtu di si lu te di wo nguur gi si mu taxaw si loolu si nu mu gënee gaaw si lépp loo xam ne fii ci Touba sëñ Touba tere woon na fi moom mi nga xam ni moom moo sànc dëkk bi yooyu juróom la bi njëkk mooy jaay jëfandikoo lépp luy sàngara wala lépp luy indi mandi ñaareel bi mooy di jaay di jëfandikoo lépp loo xam ni xeetu sineebar la maanaam euh, lu mel ni sax yàmba te loolu muy lu nëbb wala lu feeñ ak lépp loo xam ni wàllum carte la ak loterie booboo ñett bi ñeent bi mooy euh, sàcc ak jënd wala denc lu ñu sàcc juróomeel bi moom mooy sabar musique fecc ak lépp loo xam ni yëfu xumbal la te loolu euh, ñu ngi siy dolli lépp loo xam ne dafa woroo ak l'islam euh, ñu ngi ko def euh, tubaa 18 septembre 1980. gor day ragal gàccee ki mooy dellu yi yem ak say bokk lii moo ëpp a def gàccee di kuy wut pepp akum ndox nag ba ñëw fekk dex gu rëy ak dàgg ñibbeeku woyef jàppal sa def yii duy bañuy fees ak njariñ ndax boo demee kër ñi bi am yàlla ak yëf mboolem sunuy ndab yàlla fees ak lépp ndam ak mucc ak njariñ ak ngëneel ak ji jëf sunu waa kër ak mboolem sunuy kër yàlla na jag sunu itte rëy nuy gaa yu am ittee kilaf waxtu wi ñu baatam mu wax ci rajo bi rekk fekk ne diisoo naa ñi bokkal sëñ Tuubaa ñëpp du def mukk te ku ne mu jox la si cër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 responsabilité la te te wut ci won kuko geureum daw ci daw ci won ko. sëñ ragal ragalam yépp ragal togn nit la nit nag bu nekké ci deug du togn sëñ Abdou lenn la ragalon moy togn noonu mu ko waxe won sama ya kari joji jant bu mako naré tas su dék bëccëga yàlla bu ma yendu budé guddé yalla buma fanan jomam jëpp ak ngoram jëpp. ak yitteem jëpp jëme ko ci dëggal yaakaar yi Serigne Touba joojee ba Serigne Touba ba suñu boroom may ko ca la ko ca may. yàlla suñu borom moo sàkk doomu aadama def ko muy xalifaam ci kaw suuf def ci moom nëbb ci moom dëxëñ ci moom taaral ko def ci moom axsanu taqwiin cëral ko muy xalifatullaahi fil ard cëral ko ci laqad karam naa banni aadama terewul mu togg ko ay jëf gàll ko ay warugar ak i warteef rawatina kóolu téem nit wara doon ku taayal suñu boroom ci kaw suuf loolu di ab responsabilité bu rëy nit ki war matal diggam ak suñu borom wara matal diggam ak mbindee fi suñu boroom yi war a matal diggam ak lépp lu suñu borom bind moo xam muy lu am ruux wala lu ko amul kenn ngi ci jëmm yi nga xamante ni dañoo feeñ rekk ñu fas yéene yanu yan ba ngir teel a xam lañu koy doye teel a jël responsabilité ba mu mat sëkk mujj doon nit ku mat ba far mataale aw xeet te ni bi mu doon sol sax nee na ak soldaar la ci jublu ngir mën a liggéeyal lislaam ak Sëriñ Tuubaa bi mu doonee xalif ba bi muy wàcc liggéey mu susumi bu mu mel noonu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 ma fas yéene bi ma xalaatee ba ba am ci loolu ma fas yéene ku ñi mag ñi àndoon ak sama baay ku ci ne ma def na la sama baay dem fa moom waxtaan ak moom dund ak moom def ak moom kóllëre ba lam xam ci sama baay wax ma ko ñi ma bokkal baay te mag ma te dundoon ak sama ma def leen baay moom kenn ku ne ma dem ci ñoom dund ak moom ànd ak moom noonu ba am ba ba ba la nga xam ci sëñ bi lépp nga wax ma ko. loolu mu yégoon ci ndawam nag mooy mooy indi jëfam yu bari ci ak ci ak mu jëm bi muy nekk ci xilaafa gi euh, doxal na charte yooyu ma wax léegi te amul lenn lu nga xam ni am na ci lu muy négocier. am luñ lu mën a taloon euh, du ma ci nëbbu leen may xalaat ne bu ma ko gaawul wax ba nit ñi jiitu ma fa mu musibaam naa gaawanteem wax ko defe ne maa ci ne ba ma ñëwee ba may bëgg a wax la ma ne da mëtumaa wax li ma lay wax daal bu fi moom la lay wax bul dugg ci dara ne ma ñooñu ñu tuddee niti nguur loo gën a moytu seen mbir gën koo jege sa maam ndax sama maam du jaxasoog ñoom euh, sa wërsëgu maam it du jaxasoog seen wërsëg soo bëggee nag lépp loo soxla ba bitim réew ñu di la ko euh, yanul di la ko yët te dëgg sa tur te suñu laa gis na mu ko defee loon sa baay fexeel ba euh, sax ci li sama bëgg di ci xëy di ci gont loo am bu dee toola lu mu tut tut booba maa nga mboor yëngu ca te yam ca te la ko boole ko nak ful ak fayda jo xamni wat na naa ci àldi gouvernement bi lele mo moo def lëf ni ah def len dank nan la gis sëñ di wax president Senghor mo wax ni mom bëgg na seigne Abdoulaye ñu ni ko tax mu ni ngir lu nekk ci mom dana ko woné mo nu ko wax president Ousmane kamara ngi tok magat Lo mu ni moom bëgg na sëñ Abdou Lahad ndax daal moom gis na ni nit la ku lu nekk ci moom rek dana ko wane. sunu waxtaanu kay nag noonu ko war a jëlee ci àddina ak meloom ak li tax ñu andi lu fi ak ni mu demee ci bu loolu jàllee nu teg ci Serigne Touba nga xam ne yaakaaru nu dul moom ni nu war a àndee moom. ak ànd gi ci boppam it li ci nekkal andi wuñu nu fi ngir noppal nu andi wuñu nu fi ngir nu sax fi andi nu fi ngir bégal nu dara andi fi lu dul suñu yaari waajur yi nga ne ñoo na meññ te nekkoon ci àjjana jëf bi jëf loo xam ne terewan nañ leen ko te seytaane fexeel leen ba ñu jëf ko ba leen suñu borom ba leen suñu borom ne al'an noonu mu daa wax rek ne Sëriñ Tuubaa dafa yëmut ci murit rek képp ku ne asadoon laa ilaaha illallaah ba mu yàgg mu ne ak ñee ca des ñëpp sax ndax irham jëmee al waraa la la daa ñaane moom irham jëmee al waraa nag nee na ñi doonul jullit sax ca lañ su defee moo taxoon moom mu yaatal mbiram ba lépp loo xam ni conflit li wala lu jëm ci fawda wala ak noono wala lu mel ni xeex wala nàngam da ci daa bay bay aw waaram bu baax a baax nga xam ne bu fekkee mënta woo ñooñu ñu wuy si ko day jóg fekk si leen ñoom bu defee kenn ku ne itam mu mu muy def ci yow teraanga joo xam ni yaakaar naa ne lu la ñaan la ci ëpp da nga ko may <laughs> hmm. te lu mu koy tàggu sax koy tàggu en quatre-vingt mai quatre-vingt décembre quatre-vingt ñu ànd foofu toute la bés bi ñoo fa yëndu sax muy dem mën na ko rëbb dénk naa la Abdou Diouf moo ko waroon a wut. mu ne ko gàcc ngaalam nupp si jàmm réew mi nekk si jàmm sa gannaaw moo tax man ne Abdoulaye Mbacke ku bëgg yaa jàmm la. réew mi léegi jàmm am na ci du yàgg yoo xam ne kenn ku ko naatam ci mbooloo mi toog amu fi ndax wetu ay bor lu fi la jëloon nit ñëpp la te commencé gis mu gàntal fi barab dañ ko ne rek bu subaa yées nga xëy si nga fay mbaa nga rey mbaa ñu rey la mbaa nga reyul. loolu bari na ku tuxu koo xam ne moo la tuxal fa nga ne nekk loolu fexe na ba seet na ci diggante nit ñi ak waa nguur na fexe nag ba mu seet ci diggante nit ñi seen i morom boo ko defee rek jàmm dana fi am te jàmm rek ma ta fexe irham jëmi alwara la la daa la daa ñaane moom irham jëmi alwara nag nee na ñi doonul jullit sax ci lañ su defee moo taxoon ñu moom mu yaatal mbiram ba lépp loo xam ne conflit li wala lu jëm ci fawda wala ak noono wala lu mel ni xeex wala nangam da ci daa bay bay aw waaram bu baax a baax nga xam ne bu fekkee munta woo ñooñu ñu wuy si ko day jóg fekk ci leen ñoom bu hmm. defee kenn ku ne itam mu muy def ci yow joo xam ne yaakaar naa ne lu la ñaan la ci ëpp da nga ko may <laughs> ndaw yi rawatina ndaw yi nga xam ne ñoo ngi doon jàng nekk ci université ci école yi taxaw nag jàmmaarloog nguur gi ni seen nekkin il faut ñu xoolaat na muy demee ba nga xam ni daal réew yi yëngatuñu woon yëngatu nañu woon trop ma ñëw mas na ñëw Dakar boobu benn yoon laa ko gis ànd ak ay grévistes ñu ñëwoon ñu koy leeral gars yi tubaab bi ba nga xam ne mënuñu wax wolof bu baax ma ne ko man de man Kajoor laa dëkk dégg naa wolof mën naa la leeral lii bi ma waxee ak moom ba eggal fekk na déggoon na sama tur mooy bi ma waxee ak moom ba eggal boobu man ci laa ko jëkk a gisee nii bi may jóg di dem mu ne ma sa yumpaañ fan Njaay mi ngi ci kër gi soo génnee nga nuyu ko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 ben talibé bi ne ko bi diw mi ma amal mbir de satch la way man tam satch la señ la di re? mu ni ngeen lan mu ni ko ñu ñaar ñep satch lañu nax li nu dox li nu doxale du nonu koku wax gi mu wax deug motax señ sëñ gën ko jox bop nak ni ko lepp lo xamni ni la genn ci kat duma and nit ko xamni dafa nek ci njubadi luy njubadi dal genn ci li tax ñu bayima ma fi ñett rek la sam wattu ak la sam dafa am lo xamni neena duma ci dara fi la ko fek seigne touba ko liggey neena lolu sama ngor lay sama ngor ak lay sama jom moy ma sam ko ba dara du ca du ca du ca sik lima wara wattu moy amna lo xamni warna ko wattu ci wax ak ci jëf war ko wattu ci sama jëm war ko wattu ci sama doxalin waye nak amna ndax daf ma warul waaye nag am na loo xam ni it nee na yéwénal war naa koo def ci ñi ma sëriñ Tuubaa booleel ak ñi nga xam ne si ñëpp ñoom ngi ci toolub lislaam bi muy jëf muy wax leen lu ci nekk la ma ci war a war naa ko def. ko la léegi wóor tëng ne xam ne fa la sa yaakaar nekk kooku balaa yaakaar yi xam ne moo gën a doon ci war laa fa jëm fa war laa war war laa fa jëm fa war laa tàpp jëm fa mooy nag taxu may wax te fab sunu bakkan teg ko ci dëkk bi ci li ci sëriñ Tuubaa bëgg mooy la gën ci ñun bu nu ko defee moo nuy jëriñ wala ci ne jaahadu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa wa inna Allaaha lamaa al-muhsiniin fi ne ci set yii fi ne li fi nekk ci ñuy ter ñu bàyyi ko lépp sëriñ la jógee ba mu fi sos brigade spéciale bii kenn ku ne dafa jàppoon ne lii du lu war a mën am waaye bëgg gu bëgg taxawaayu dëkk bi ak sellaayu dëkk bi ak loolu sëriñ bi wax ci Tuubaa mu jëmmal ko loolu moo taxoon mu nangu loola am fi te loolu bi ñu nemee gis nañ ne mu gën a dolli ku gën a bari moo gënoon mu bañoon a am ba loolu moo sabab police spéciale bi am fi moo sabab yeneen yu fi war a am ëllëg ak si biir. fi mu fekk Touba ak fi mu ko yóbbu képp kuy muridullaahi mbaa ngay njabootu yant bi xam nga ni liggéey na liggéey boo xam ne nii. Eh, ñun ginnaawam dañ daan wax ni ku ñëwati Touba daanaka da ngay toog rek ndax si Abdoulaye liggéey na sëñ Abdou Lahad la doon doxe dencutoon dara waajalutoon boppam ci dara waajalutoon kennam ci dara dafa ñëwoon rek ngir eh, mission bi ñu ko yónni daal ndax waxoon na ne kuy wax ñaari nit di la dégg eh, eh, mursal nga ci ña ngay waxal nabi mursal nag amatu waaye nag moom xam nga ay junnee doon wax ak moom kon ku ñu yónni woon la dafa ne bis bu set dana wàcce alxuraan jàng ñeenti junni béyt loolu la sasoon lu nit ñi bari bari buñ ko naree gàllankoor day dugg ci oto dox ba jub njëriñ dëpp rek ba jàng li muy war a jàng ba nag jamonoom de ormaaloon nanu diine ku daan yëkkati jëmale sa diine sa xel dana dem sëñ Abdou Lahad. sëy Cheikh dañ daan toog mag moom di waxtaan ci sëñ Abdou Lahad lu yàgg wallaahi laazim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 dafa am lu mu war a sàmm ci biir loola moo di li yàlla digal mbooloom jullit mu ànd loola loola loola moo di wa taxawanoo alal birri wa taqwa wala taxawanoo alal ismi wal hudwaani di dimbalante ci aw yu ak lu jëm ci ragal yàlla te bañ a dimbalante ci bàkkaar ak lu jëm ci ak noonale nekkam fii di xalifa sëñ Touba tax na gouvernement bi gën a gën a wek wek kilifa diine yi waaw ndax melo ko yàlla joxoon mbir mu teew ci kanam wala mbir mu xew ci àdduna dana ca wax mbaa mu def te loo xam ni ñëpp dañ naan fa tabarakallah sunu xaaliqin waaye am na ci loo xam ne ci wax la ko soppee. da bàyyiwu ci benn fànn bu dee ci dëkk bi luñ ci war a def te defuñu ko noonu la leen koy waxe waaye nag day fekk itam nag loxoom jiitu ci. temps yi amutoon cabine téléphone tubaab moo njëkk am cabine téléphone Sénégal loolu lépp nag ti barkeem la ak waxam ak ndigalam. ñi. Le euh, le gouvernement yi bëgg ko changer ci réew yi gouvernement yi may ñu leen ko amuñu fitam sëñ am fitu diko wax muy melni de doléance ñëpp yóbbaale xalaat Il a mo indi jeunesse bi ci mom nak mo wal a ko am dama koy ci ak rek di réew ci seen dal ci ñu am ci lu maa ngi koy ñaan bu ko dara delloo gannaaw ci loolu bari ko xel bu baax a baax te bàyyiwuñu ko xel dara lu may aw jëfinam ci ñoom yaakaar nañ ci moom yërmande ngir wane ne lu ko niru yaakaar nañ ci moom ndimbal ngir wane ne lu ko niru waaye yaakaar nañ ci moom sutura ngir wane lu ko niru kon nag loolu ñaan naa ko rek melaw àddina bu mu ko ca delloo gannaaw mukk ci àddina melaw nit ñi bu mu ko tax a dellu gannaaw ci loolu xatuk jamono bu mu ko tax a dellu ci loolu saa su nekk nay seet ni yàlla te moo ko fab teg ko ci kanam yëpp nañ jëfante nit ñi ci turu yàlla mi nga xam ne moo ko teg fi seen kanam bu ko dee def yaakaar gëréetu te la mu doon def nit lu mu doon def ba am la mu doon wut yaakaar na ne bu ko bàyyiwul du ko ñàkk 1970 amoon na cycle de sécheresse au niveau du Sahel maanaam nawet doonul woon tooy na mu doon war a tooyee nit ñi di daw di jógee euh, réewu kaw di ba bàbbeeku dem réewu taax euh, mu indi ay changement yu bëri indi ay coppitiku yu bëri indi tamit ay jafe ci pénc mi Cheikh Abdou Lahad ci responsabilité bi nga xamni mom la assumer delloo nit ñi euh ci sen ci sen borom ne len deug deug nak lu mbir jafé jafé jafé jafé lu aduna jafé jafé jafé buñu faté suñu borom. nag day nek jikko yo xamni ñun ñëpp ak fu way mëna nek rek jitam mbooloo war nga ko mëna roy ndax jamono juñu tollu bëgg mbooloo ak bëgg àddee tax na kenn dootu waxat li nga wara wax mom nak da ko daan wax fam ko wara a bu ko kenn topé baxna bu ko ñaar topé baxna képp ku mën a yelif nit moo xam benn nit nga yilif moo xam ñaar moo xam mbooloongo moo xam état nga yilif da ngay gis ni saa su ne ku ci wax faw nga dellusiwaat ci sañu Abdou Lahat nii ba mu waxee nangam wala ba mu defee nangam. waxtaan ak waxtaan woo xam ne dama bëgg nu taylu ko bu baax a baax ma wax ko waxin wu leer ba ba ma fi bàyyi ko kenn du ne lii la jublu woon a wax ba lii la lii la fasoo woon a wax.

te mu wax ko su kon ñañ koy def moo tax mu di ko wax tere na ko. maa ngi fàttaliku bu ñu seetee Senghor benn bés en au mais en mois de mais quatre-vingt ñu préparé nawet bi te jiw génnutoon les semences mais président Senghor béykat sonn nañu xiif nañu man nga jóg si jiw bi ak ci dund bi. ko mun nag mu ngi ci plan bi ku mun plan dafa yéex ñëpp rek. ñeenti fan lañ teg jiw génn dund génn. nag ngërëm loolu maa ngi koy defe nag ci turu murid yëpp ci kaw ndigalal sëñ Tuubaa lu wér loo xam ne lii dama koy wax ngeen dégg ko moo ne fa hay suma ahsana su ihsaan ilayka fahmatu bi la tawali saa bu aji rafetal rafetal lay jëmee ci sa wàll daal di koy sant fasaase te bu ko yéexee kon nag ma da leen yëgal leen jëf na lim man ci sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa ci dara lu weesu yéene ci moom lu baax kem sa kàttan nga kon nak fay gi yéen ko amee yéen murid yi aljisaw isaan ila lisaanu la yàlla wax du rafet du ne lu ko gën rafet rek la ko war a nga luy murid te xam sa yëpp laat Cheikh xamal bu wax murid sa yëpp laat lim xam ci Sëriñ Tuubaa man ko caa xamle sama bët musu ko tegu ci ko xam ab nopp musu ko dégg yokk gii fi Cheikh Abdoulaye di def da doon lu làqu doomu aadama Sëriñ Tuubaa doon ko lu yàgg waaye ndekk dafa am ku mu ko dencal ci ni ma la waxe ni ku tudd ku fi toog tudd turam sekkare bu ko neex mu dox la rek yokk gi mu yokk dëkk bi di ko yokk jumaa ji xaadim waxoon na ko dafa waxoon ni yaquudu li kun fa yakunu maa yaxiib anil wara ah, ah, ah, ahraadi anu minu taqiit jëmm ngi joo xamante ni histoire lu mu xat-xat histoire lu mu nay-nay faw mu bàyyil ko ay page yoo xamante ni araf yu wurus lañu koy bindee ndax ci Afrique sow ndax ci àdduna wërngel képp xamees na fi jëmm joo xamante ni jël na responsabilitéem ba mu raw jëmm jile jël na ko ba mu mat sëkk ci fànn yépp jiital ci diineem ak tarixaam ak ndono lu rëy li ko way juram bàyyee noonee la ko jële ci am réewam rawatina ci wàllug politique ak dundinu askan wi ba fépp fu mu ci wara a mën a taxaw def na ko ba mu mat sëkk te ñeebluwu ci dara mu wet si ak mu wettaliku ci la ci yamale ba faf doon ñàkk caaxaan waaye ñeme responsabilité ba mujjee yëbbal ci aw xeetam ak i ñoñam rawatina ci seen doxalin ak seeni xalaatin rey ci ñoom woppi complexe ak xeeb sa bopp man Cheikh Abdou Lahad jomb na and ak ko xamni day delu gannaaw wax bobu itam da naka lama taggo mi nga don jox message avant muy dem dama ko seeti bima ko seetee mun ma li la rek la lay waxat bu ragal dara mbari yep na waaye ñett dong lañu fi yalla indi loo xam moom lu yàlla baa nga yël lu mu yàlla lu mu bëgg amu ko waaye soo ko nee yàllaa ngi nii la bu la wanee gannaaw mën naa bañ a geesu gannaawam ndax am na li bëgg ki nga xam lu mu bëgg lu am la bëgg nee na mosal ko di dikk ko nee du taxaw day samp xelam nekk nga xam dara jël bëgg mu yëpp tawee bu bu wax ak moom loolu nag kon bokk na ci li nga xam ne képp koo xam ne jiite nga mbooloo jiite nga te nag euh, na nga xam ne mbooloo moom ak mu mën a doon xam rek moo leen di jiite kenn mënta jiite mbooloo mi ci lu dul ko xam kooku a nekk loolu boo ko xoolee maanaam ni mu ko doon defee moom ak ni mu doon soññewaate njàngam ak ni mu taxawaalaate daara ak boo gisee euh, maanaam li mu doon dajalee téere yi Serigne Touba ak li mu ci doon yokku nga xam ne kon loolu bokk na ci li nga xam ne euh, ak université beeg yeneen da nga xam ne kon xam na ne lii muy dund moom euh, lan moo koy mën a saxal mu jàll bu fekkee ne lu lu doomu aadama du béel waaye lu ko mën a fi lu ko mën a jàllee loolu kon loolu wane na ne doon na junj ne kon nañu gën a fonk daara ji nañu gën a fonk xam-xam bi sol ko ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko war war a sol ci ñoom ndax loolu mooy li nga xam ne mooy li lay mën a téye kilifa diine gi li nga xam ne moom la moom la war a taxawee ci li ñëpp bokk yaakaar naa ne bu ñu royee ci Sëñ Abdou laa def ko modèle dinañ ci mën a dinañ ci mën a euh, am ndam ci ci ci biir ak ci bitti. xam ne nit ñi dafa mel ni amatuñu xamatuñu fu ñu jëm xamatuñu fu ñu jublu benn tubaab bu mel ni Philippe Couti daan yoon wi nga xam ni moo mën a sauver àdduna bi moom mooy yoonu Touba kon defe naa ni yoon woowu am na kenn koo xam ni joué am na mu war a

nañu delu ci li alquran santane, nañu delu ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam limu nañu delu ci khassida yi sëñ tuba je crois que lolu nek na lo xamni amul kuko ci mere ci lolu nga ko méré ku ci and ak mom ci lolu nga and ak mom delu ci yalla delu ci muhammad sallallahu alaihi wa sallam ci jàngale sëñ touba lolu mom moy responsabilité cheikh abdoulahan mbake mere fam bu ngeen gisee ne jàppee ne mer naa am lu ma xarit mer moom dara mënuma koo tax a def lu may gis rek lu naqari yàlla lu ma mënta faj loolu it daf may naqari ngir la ma naqari yàlla dong waaye nag du da naa xam ne inna minal mujrimiina muntaqimuun yàlla bi mu ko waxee boo gisee kuy def loo xam ne lii neexul yàlla it bu war nga ko mën a gàttal naqar wa yëgul fen man du ma mer du ma xuloo dama bëgg nag loolu leer leen ma bëgg nag ñu wóor leen tëng ni sëñ Tuubaa mi ñu yaakaar lu dul moom diiru li mu fi ne topp yàlla la ñuy digal jaamu yàlla la ñuy digal liggéey la ñuy digal jàpp sunu njaambur la ñuy digal ak jub la ñuy digal. nee na nit ñi bu ñu téeméer gàtt yi di téeméer nit di di di ne gàtt yi moom mën ngaa ngaa benn bant ci waaye nit ñi ni mu toll kat ni la seenu yat di toll daa waxtu na daal bi waxtu wane nit soo mënul nu man du nu ànd mbaa boo mënul diw du nu ànd. la nga wax bu ñëwee say aada du bari xam nga lu ko waral ma ne ko déedéet mu ne ma li nga xamee ko bind nii bari bari mu wutal maarifa ko la jàkk xam ne yaay diw te seen xam tuy kaw yooyu li muy bari bari wuute biir gee raw ne ki yàlla bind bindaale si moom lii ne moom mënu koo soppi yow mënu koo soppi te yàlla bi ko bind ko sopp mukk bu soppiyaat ko ne boo moom ànd ànd gu wér wax boo ko wéralee say ànd du bari am meram itam nag war ngeen koy wattandiku mu ne ah war nañ koy wattu de moom mu ne sama mer war nañ koy wattu de moom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 Euh, boo gisee ñuy ay jànkat tubaab tey tey sa tey sàmm lu bari dañoo dañoo boolewoon ak ponkal <laughs> dañoo dañoo boolewoon ak booba loolu mooy wax ji kon aspect ngi noonu yoo xam ne liggéey dëkk dafa am lu koy yor dëkk dafa am ay ressources muy courant bi ñuy bokk ngay xam lu doy lu manqué par rapport ak ni dëkk bi màgge ndox mi niñ koy jariñoo loolu daf ci daf ci am pacte bi nga xamne mom moom la ko borom sànce nga xamne bo dugg yow ya signé contrat duma ma fi def nangam li lu wuté ak lim bëggoon lolu dox na ko bu tali budé budé budé budé budé budé budé bu dee marché yi duñ ko wax mom marché bi dañ nako ci budé fexé ba nit ñi fonk seen bop def nako ko da na wax ni tubaab tubaab lu dal jërte reyee sa bopp reyee jërte reyee nit ñi fenn ndax bo loo bo tubaab tubaab lu ba yaaka ni mat nga tubaab tubaab bi gourmet la jappé boo naar naar loo ba yaakaar ne mat ngam naar naar bi pour ñu dong la lay jàppe te la cay firnde 72 ci forage bi indil nañ ko ay bot yoo xam ne bot yi boti tubaab yii la mu dem ba koy dugal ci tànk bi seen ko xool ko muy daan mu dóor ko ci miir bi daal ana sama dàll yi jóge woon ngaay ñu jox ko ko muy ay bott yi yoo xam ne ngaay lañ ko ràmm daal di ko sol kooku xam nga ni c'est un nationaliste. yoonu murid yëpp yëpp ànd maasaloo yembandoo ci loxoom <laughs> ko. fonk ko bëgg ko mu doon nit ko dëggu koo xam ne donte du far nit ci lu du dëggit njariñam tax na doo xam foo koy jaar ndax li may faral di wax ne yonent bi dañ ko yónni inna arzalnaaka bil xaqi bashiran wa nadiran ñaar yooyu day bégle tey xuppe waaye si Abdul Ahad daf lay xupp dox sa digg ak mooy yàlla aar la ba doo am foo jëm at mu at mu ca génn génn na ca limba te dootu del si weer yi nga war a dund weer wu ci dem dem na te dootu dellu si bis yi nga war a dund bis yi nga war a dund bis bu ci dem dem na te dootu dellu si saa yi nga war a dund saa su ci dem dem na te dootu dellu si te bu ci dem te yóbbaa leelu la dara boo demee doo fa fekk lenn mu daal di xam nag yitteem jëpp jëmee ko ci jant bu fenk bu ne buy dem muy jëflante jant ba ci li yàlla digle ak li yàlla bëgg ak li yàlla santaane ba jant ba siir sars buy dem yóbbaaleel ko. waaye it bégal la jariñ la ba doo ko mën a muñ. kon nag bu waxee nag Tuubaa yi abdi muridin saadiqin texe ñeel na bépp yi boo xam ne dëggal nga joxe sart yi nga xam ne ci la ab murid di dëggale. muy ñetti sart ngeen boole ñetti sart yépp def ko te benn bu ngeen ci defal mu doyu sëkk may leen la ngeen bëgg kon danaa mën a waat na ay saadex ngeen danaa mën a war na li bëgg da ngeen ko am dama naan xalifa sëñ yëpp day mel dafa taxaw taxawaaye Seydina Abubakar Siddiq ci ñoom ku moo sës ci rëkk doon sa wéttal di la xelal ànd yow ba doo tiit doo jaaxle doo wéet ndax nit fu mu mën a ne te gisul boppam dana yow ñett yooyu dana ko dal waaye fu wëlbati koo gis sa mbokk ci sawet rek doo jaaxle doo wéet te mom kenn ku ci ne foo ma sawal bëti góor gis nga Abdou Lahad te xam nga fitam xamum xelam. bu dee acteur de développement ci dëkk bi mo khalifa seigne Touba moy jëkk a nekk le premier acteur de développement donc lolu nek na lu am importance lu am importance lo xam def nako ko fi. léegi tey faf junni junni million nek na fi amna ben benn bi ne bu boo wax ne daf koy mottali kon na ngeen yëg ne junni million ak juróomi téeméeri million yi ñu leen waxon jeex na. ma di leen yëgal nag ni leen Serigne Touba lu mu bëgg rek noonu ni lay amee danaa xëy benn bis daal di ni tey jii damaa bëgg ku ma bindal ab kaabir bu sotti mbooloo mi daal koy séddoo bind kaabir bi mu sotti danaa taxaw fi barab ne tey jii nañ ma jàngal fii téeméeri kaabir ñu naa di ko fay jàng fa saas monsieur santaane lu jëm ëllëg kon nag ngeen mu wóor leen ne liggéey bi àgg na ba noppi dara lu ci deexee deexati amatu loolu mu leer nañ maa ngi maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant maa ngi leen di xamal ne sëñ Tuubaa rek la nu am na nu ngoon moom liggéey bu àgg nañ tàmbali beneen rek ñu dem leneen nekku ci jaay ngeen jëf loolu dong laa doon woote képp koo xam ne ne nga fi wala teewaalees la fi te ngay kilifa diine maa ngi lay jottali ak cant ak ngërëm ngir monsieur leen dañ ñukk lépp lu nu nekk ngeen di ànd ak noonu ba ci bisu bi kon nag noonu la loo ngërëm di leen sant di ñaan yàlla mu di boole nu dimbali àddina boole nu lu tasaaroo fii la ngir taalibe yu bari ñëw nañu fi indil ma journal bi jàngal ma ko wax ci seenu naqar waaye loola moom lama ma tontu ñëpp moom laa bëgg ñëpp yëg ko fu fi am taalibe ne na yëg ne loolu moom ngelawayam moom darayam man ci sama tuuru bopp man lu nit mën a wax ci man woyof na ci man toy yi ngir aw ma pas-pasu feeg may dund nekk lan ma may di taalibe bi Sëriñ Tuubaa bu koy liggéeyal tey sàkku ngërëmam dolliwuma ci dara Euh, lu nit mën a wax ci man rek man mën naa ko koo jégal ndax du man du ma kenn du ma lenn wàllu sëñ Tuubaa itam lu ci nit wax lu mu mën a doon bu ngeen yóbboo def ko bànneex te bañ koo defu naqar ngir dara mënu ca juddoo lu dul bànneex ngir moom fu ne jaarees na fa moom lu defees na ko ko mës ta tontu ci menn mbir mës ta yóbbante ci mbir di ca waxlu mësu caa deflu mbir mu mës a ne ci loxol yàlla rek la ko ma a bàyyi yàlla def ca la ca war a def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 su defee jàmm it na leen lu ne su defee nag ñuy ñaan jàmm am ci réew mi te sa borom gindi ñëpp ndax loolu lépp ak réer rek la fi ndax kat suñ Tuubaa lim lim seq ak nit yi dafa weesu ak ndomb ak tànk wala ay commerce ki nangam moom lim seq mooy bu ñu takkee ñaari tànk yi def ko ci bàmmeel loolu nag ëppante ne fi ni maanaam boo demee ci armeel yi dutoo xàmmee kii ndomb ak tànk la yoroon wala kee commerce la woon kee nangam su ko defee loolu na ci jëpp bàyyi xel. su fekkee ci jëf la ñuy nit. ak résultat yu mu produire Cheikh Abdou pour nga mën a gis koo ko mën a dendaleel dana jafe ndax xam nga moo xamoon le des responsabilités ak nu ko assumé woon waaye assumé ko pleinement ci wax ci jëf ci doxalin. alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ألف لام ميم سالك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون من يشاء والله في الفضل العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته awal ndigal te yaru yow kon da nga làq wépp yiw te et ëllëg maa la ko wax mboolem lu dee fi jóg di wut yara ko gën gën koo rafet moo jara dox junni bi wut sëriñ bu la ko jox ku yaru rek a mata am yaru rek a mata xam ku yaruwul matu la am matu la xam turam wa ab yar li tax amul moroom day tax nga gën fa say moroom day tax nga gën fa nax ab yar li tax amul moroom day tax nga gën fa say moroom